suma ma may leen benn ah. gis ah, ngeen. naa ko. xool leen kër yi ah. Maodo yaa ngi gis ah yaa ngi gis borom kër yi li ñuy dund ah baadoolo yi waaw. baadoolo yi mag yi mooy nguur gi ñoom Macky Sall. xool xool leen TER bi moo nekk nii ah. fii yëpp yoonu ndox la woon ba ñuy construire dafa ñu bàyyiwuñ ci xel xoolal. xoolal suma sommet vallée. gis ngeen fale. du mu fees ak ndox ah. fii yëpp ndox yi danaan dem. waaw mais depuis ba ñu construire seen pont bi fii gis ngeen ndox mi ah ndox mi demul. fii mel ni dex xool leen ndox mi xool leen kër yi. kër yaa ngi fees del ñi si ñi si yàlla dimbali mooy ñi nga xamante ne am nañ ay kër yu xaw a kawe. waaye ñi nga xam ne seen dëkkandoo yi seen kër gaa ngi fees dal ak ndox waaw boo yaa ngi nii di di révolter xam nga mais c'est trop tard pour man ba ñuy révolter mooy ba liggéey bi doon commencé lañu waroon révolter parce que ñu woon nangu yoonu ndox ñu fay taxawal pont quoi loolu moom du yoon waaw te taw baa ngi taw pareegulan ah. waaw asamaan dafa xiin waaw ndox maa ngi nii ngeen xool li guy yi do dund